fexe ba mbas mi du loofal sunu koom-koom nasaxal sunu dundin moo tax njiitu réew mi Macky Sall jël dogal jàppale artisan yi loru ci mbas mi di covid 19 jàppale boobu dey ñëw yokk ci li président Macky Sall sumb jëmale ko ci ndimbalu PEJA moo xam ko am ak ko amul carte professionnel ba tax na ku bëgg a bindu mën nga koo def lu ko dalee fukki fan jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ut bi ñu ne ci mboole mu diwaan yi ci réew mi artisan yi loru ci mbas mi nag nañu bindu ji ci ay fiche de recensement ci mboole mu chambre de métier yi ci réew mi mbaa ci site internet ministère bi www.mefpa.gouv.sn recensement bi nag artisan yi bokkoon ci ndimbalu PEJA bokkuñu ci